ñi nga xam ne ñi ngi dund nañ fi daaw seen bopp nit ñi talatuñu kenn ku faatu fàtte nañ la douze mille bismillahi rahmaani képp ku ko def boo faatoo di nga dem àjjana ki ñi nga xamante ni nag faatu nañ ba dem nañ leen ñaanal jëlee naa fu wér ni képp koo xamante ni def faatu na nga dégg ko nga defal ko ñaar fukki bismillahi rahmaani rahim benn faatiha ñeent fukki suuratu ixlaas ak benn kursi kenn mënu koo teree dem tabbi àjjana te ñu gën a góorgóorlu ci di def ay salatu ala nabi Salatu ala nabi mooy tax nit ki jege yonent bi dem àjjana sori safara na nit ñi góorgóorlu ci salaatu ala nabi beneen bi ci des nag muy jaamu yàlla yàlla moom boo ko jaamuwul mu bindal la loo jaamu soo ko mu bindal la loo ragal gars yi nañu ragal yàlla nan jaamu yàlla nan topp yàlla nañu dimbalante te bàyyi waxante wax ju bon wax ju ñaaw adduna bi léeg da ngay nekk nit wan ko ginnaaw sax ñu ne la ñu ne la faatu kon nañu gën a góorgóorlu ci tuub ak sàkk sarax képp ku mën nga taxaw ci balance nga peese sa jëmm nga jënd euh, maanaam bu dee da nga peese wu nekk cinquante kilo nga jënd cinquante kilo dugub wala cinquante kilo ceeb wala cinquante kilo mboq nga saraxe ko te yàlla rek tax nag képp ku ko def rek suñu borom dana la musal ci mboolem balaa yi ak yiy xew ci àdduna bi. vidéo bii nag képp koo xamante ne nii déglu nga ko ba pare partagé ko yàlla na suñu borom guddal saw fan. ba nga am te mu ànd ak xéewal ak yu wér wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf